marché Kuli nekk fii si quartier Ayoumadi fii ci Tiwaawan ña fay liggéeyee ñoo ngi jànkonteel ay jafe-jafe ci marché boobee kii di Mati Cuun yore kàddu jaaykat yi indi na ci ay leeral. ñu am jafe-jafe bu métti nag ci marché bi jafe-jafe bi bari na ndax li fi jafe bi dañuy ñun dañuy juuti chaque jour fii dañu fi juuti ñuy fay sunu juuti normal marché bi di taw di sëq mbaar yi ngi fi gis yëpp jigéen ñi ñoo ko fi def. marché bi di taw di am ñax di sëq bi mu amee ñax di sëq ñun ñooy cotiser chaque année ñooy cotiser suñu xaalis di ko bay di ko dagg di ko bay di ko dagg ba mu set ren nag xëy na yàlla moo nu jàpp ba amuñu moyen boo xam mën nañ koo defar waaye dañ ko daan bale ba mu set wicc ba ku fi ñëw dugg fi ndax ay jiital ay yi fi teeg yuy màtteeg yu ne dafi daan aw moo tax ñu koy marché bi nit ñi daw ñëpp dem marché ku fee te fii la ñu tuddoo man nag fii sax yeex naa fee ñëw ndaxte li tax ma yeex fee ñëw marché kuli laa bu mu tas laa nekkoon ñoom ñii ñi ma fekk ñoom ay bala leen fi dugal ndax dañ leen fee ñëw fi tiira leen fiy bal dàq leen fi dugal ay lakkoon marché waaye teewu ñoom danoo riigu rek toog waaye biñ fi dalee toog ba léegi fukki at ak juróom war na koo am man nag am naa fi presque lu ma fukki at fekk seen fi ndox ñoom laa fekk nag sama maire yi toog yi ñii defar frigo yi ñëpp balee leen fi dàqe woon genn waal gi ci bi yëpp balee leen fi dàqe woon ñu leen di dóori balake làkkal ma seen tey ba yàlla def ñu toog fi kenn musunoo kenn musunoo fekk fii nag defal nu fi dara fii kenn musunu fee defal dara dara dara dara ba dala booroo ñoo ñafe def suñuy mbaar def su suñuy liggéey di ko def ba mu egsi fii. lu ni mel la Alioune Mbaye wax moom mi ngi sàkk ñu gën a jox marché bi gëddam ba mu nekk bërëb bu mucc ayib. marché Kuli bii nag ñun noo fi nekk maa fi nekk ak jigéen ñi fi nekkal ñuy jaay lu jën marché bi nag mooy li naqari rek moo di kenn toppatoowu ko kenn benn maire mosu fee jaar di wax dara ak dara. marché bi dañ ne ko saboteel saboote goo xam ne tax na fii mu ne ñun fi nekk te ñu bari ñu ngi daw ndax kenn toppatoo ko ben mer ñoo ko fi depuis ba ko Malick Diop yàqee ba léegi kenn jaaratu fi di di wax mer bi même mer bi fi nek sax jaaru fi te xam marché bi baxatul yaq nañ ko xeet te marché bi mbolam marché ji dëkk bi ma ci gëna bax ma yaq nañ ko yaq nañ ko yaxeet dag nañ ko ay dag yu bon ba tax ba nit yi ken sa waratu fee ne xale fi jotone tambalé ñew sa sax daw nañu ndax dañ ko toppatoo wut te marché bi ben marché gënuko waaye nag nun ñu fi nekk dañoo amul pexe ay mag la nu mënunoo dem fenn moo tax nu toog waaye nag du marché bu du marché bu bu légal daal fii ne marché bu yàqoon kant yi fi nekk ñi ko moomoon fii ne doon ko luyee ñoom gouvernement bi moomu ko ñoom gars yi jëndoon fii rek ñoo ko moom benn kant bu na gouvernement moom moom nekku fi ñi nga xam ñoom la ko waa mairie yi jaayoon ñoom ñoo ko defar ñoo ko defar nekk fi di ko luyee di ko luyee ñoom it luyee cher nag moo waral na tax tey xale yu bari ñu ko daw fii mu bu ko maire moomoon moom du nu jaaxal waaye maire bi da koo jaay da ko jaay nag ba mu jaayee fii nag ba pare ñi ko defar nag ñoom duñu ay ay commerçant lañu ñoom it dañuy dañuy dañ ciy commerce moo tax ñu koy jaayaat maire ci boppam amatu fi benn benn dogal fii mu ne ndax lépp jaay nañ ko jaay nañ ko te dañ fa war a def maal bu mag wut mbedd yu baax def fi kon nit ñi dañuy ñëw ndax fii xam ne place bu baax la. ak di ñaan it nag ñu indil na fi maire bu baax bu mën ko defaral. yi dal mën moo na gën. si njeexital bi jaaykat yooye ñoo ngi tàllal seen ab loxo autorité yi ngir ñu gën a dugal seen loxo si marché bi. maire mi fi ne juróom-ñaari at mi ngi fii ci Tivaouane xamul ndax marché kuli am na xamul ndax marché kuli taxaw na mosu mel ni Ablaye Ndiaye ngal go moo fi mos a ñëw amuñu ak bu ñu tawaale bu ñu dem amuñu fu ñu war a suturloo amuñu ko mu waxoon ni pour ko fi defal moom maire ko tere ni loolu du fi am. robinet bu ñuy wutee ndox ndax ci kër la ñuy ndox fu ñu dem ngi dàq kër gu ñu dugg di fa ñaan ndox mu dàqoon léegi daal ñun ñu ngi toog fii toog suñu banu jaaxle nag ku fi dikk daal jàppale nu ñu ànd ak yow Moussa Lemay nag moom boobal sax bañ fee jaar toog rek ñun ñu fi dee daal ñoo ko ñun jigéen ñi ñun jigéen ñi ñu fi def rek ñoo ko fi rey Moussa Lemay nag moom moom waxul saxul waxe xam sax ndax moom juróom-ñaari at la fi toog dara musuñu koo gis sax nag xamuñu ko sax faf xamuñu ko de xamuñu Moussa Lemay li ba mu dooree ak léegi moo ngi toll ci fukki at ak juróom waaye boobe ba léegi gisuñu benn ndimbal bu jugee ci autorité yi ba tax na ñu ngi ñaan ñu gestu leen ngir saafaral yooye jafe-jafe